alhamdulillahi alkarim silminan ala istiqaali bi sakartu li'anna qad saxani li watani waxaadani ilay bitaani min baadi ma sababi taxayri wa fi ilal ulumi wal wal amali bil mahrumi dëkk bi moom li taxoon Cheikh Ibra fàggu ko mooy liggéeyal Serigne Touba ndax xamoon na ni li ëpp ci liggéeyal Serigne ci Touba Mbacke gi lay doon ba moo taxoon mu yabal fi mag ñi ñu sanc barab bi ngir man fee liggéeyal sëriñ Touba ba leen fi yabal it da leen waxoon ni leen barab boobu ma leen di yabal day yabalewu ma leen fa lenn lulut ngeen toog fa jege Touba su ndigal jógee ngeen dem jëf ko dellu siwaat toog di dégluwaat ndigal ci loolu la ñu meññ ba fii ñu taxawit ci loolu la ñuy dox euh, mag ñeet bi leen fi indiwoon seen dund ci àdduna at mi dañ koo xaajoon juróom benn weer carrière juróom-benn weer tool yi loolu moo nekkoon seen dund. lii nuy jëfandikoo muy néeg yi nga gis tey jii ñu koy daajal jàppale suñu mbokk mi nga xam ne dafa lakkale woon di ko daaj biñ fiy ñëw ay ciment yooyu xewut boobu ndox amul ay teen ay teen a fi amoon te teen bi ñu doon roote ji ak dëkk bi mat na 7 kilomètres ngay lan doon roote ji te ngay ak fii mat na 7 kilomètres euh, sanc ko ci jamono yoo xam ne nag ay jafe-jafe moo am ndax boobu moyen amut waaye moyen lu mu ñàkk-ñàkk dafa am loo xam ne moo ëpp doole moyen muy ngor ak jom ngor googu ak jom jooju nag ci la mag ñi téye ba li nga xam ne sëriñ bi bëggoon na ko ñu mën koo samp ndax jafe woon na bi nu fi ñëwee loolee leen mag ñi digaloon loolee leen Cheikh Ibrahima digaloon nit ci lañ nekk mooy déglu ndigal Touba bu ndigal li yegsee ñu ñu dem jëf ko dellu si toogaat di dégluwaat ndigal su su su su loolee di jàllee diggante bi mu fi toog tamit liggéeyal sëñ bi la. ndax fépp foo xam ne lépp loo xam ne ñu ngi koy soxla ci jamono jooju ci wàllu bant dañ koy wut di ko teg di ñi war a sàkket di sàkket ñi war a tey defar di defar ñi war a yett di yett ngir min baadi ma kaddamti daawu naasi yudxiluni fi sarrakil xanaasi wakittu lil amdaayi wal itraa'i asadu fi taalifi wal ixraa'i salaamaaleykum mbokk internet 24actu ñu ngi leen di di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa nekk tey nag équipe bu 24 actu yi dañoo ñëw fii ci Touba Fall ñëw seet si nag ay jigéen yoo xamante ne ni ay référence lañu jigéen ñu nekk jigéen yu jàmbaar yoo xamante ni saa su ne ñu seen jàmbaarte tey nag di bisu ñu ñëw rek pour sargal leen ci li nga xamante ne bi rek ñu ngi koy fësal muy seen liggéey bi lee moo tax tey jii rek équipe bu 24 actu ñëw seet leen maa ngi nag toog ak nag sama benn yaay moom laay bàyyi rek daal di koy nuyu mu nuyu mbokk internet di koy sitaan yaay booy bi sant bi naka la. waaw Maysa Diba. waaw dëkk Touba Fall. Ah, fi ñu nekk nii de dafa mel ne mooy marché bi. waaw mooy marché bi de. waaw gis nga ko nii nag marché bi moom mi ngi nii rek. waaw kay ñëw ngeen ba tegal ci seen bopp seen bët. bëgg nañ ku leen ci jàppale lool. ndax nangu na noo liggéey lool waaye amuñoo ay defukaay. léegi nag corona bi moom li nu amoon na ku si néew jot na koo yóbbu. ku nu jàppale daal nu jël. nun waa marché bi ñu ngi nii ak dëkk bi yëpp village bi dañuy ñëw fii di xëy di daan seen doole. ban heure ngeen daan faral di ñëw. waaw bu ñu ndekkee ba pare rek ñëw jaay bu ci kanamee ba mi di jot ineer ñu wàcc dem tëdd dallu waaw waaye lépp war nu rek nu bëgg ko kuñ ci jàppale nag. wala dafa mel ne jigéen waaw fii de moom ay jigéen rek ka fi ne waaye góor ñeen ñu ngi ci ruq yi di doy bay seen waar nag waaw. mais bu xam nga ne jigéen mooy yaay jigéen mooy àdduna bu ñu leen tànnalee benn bés bu mel ne 8 mars ñu leen ciy sargal ñun ñu opté suñu choix daal di ñëw fii ci euh, tuubaa Touba Fall kon nag euh, ban njëg ngeen am tey. xanaa kontaan rek ndax loolu moom bu yàgg la waroon a am ñun kontaan nañ ci lool di leen bëgge yéen ñi dagg seeni soxla di leen sargal. ndax bëgg rek ku nu jàppale ndax yéen def ngeen li leen war ndax ndegam seet ngeen village yi di fi dem seet communes yi di fi dem ñun suñu commune bii daanaka benn commune mënu ko magu ko kon ku ñu ci jàppale daal ba mu gën a jëm kanam ñu jël ndax ñu ngi nii gis nga amuñu tali amuñu dara te fii mooy dëkku Seex Ibra ñu teg fi sëñ Seex Ndigal Fall mu dinu jàppale ci côté bu ne nag dinu dimbali ci côté bu ne dinu yóbbu ci côté bu ne nag bu nu mul dara rek moom la waaw waaye waaw dañuy jaay jën dañuy jaay ndugg dañuy dem Touba jëndi ndugg dem Touba jëli jën fi domaine bi nekk indi fii di jaay ah metti na moom te nag bu nu xëyee dañ lu nu am oto bëccëg gi ñu topp di takk ay sareet ak lu ne su doon am nañu tali daal moom dina gën a xéewale waaw waaw waaw ah, jërëjëf jërëjëf yàlla na taxawaay bi yàgg ورقني ترقية خفية ببنت رقية صفية وقياسا يا أخربا وأنبا ومسلما وكافرا بزينبا أمني بالخير والسلام بأم كلثوم ndax liggéey bi xaw na metti ndax fii léeg toog ko ay fan doo liggéey ndax yaa ma gën a xam dëkku village gis nga dangay toog lu yàgg fii boo dikkee da ngay yend ba ngoon jot doo gis goo liggéeyal xam nga loolu metti na surtout nag fii réew mi toll méttiwaay bi ak mbas mi xew yi taxatu ko demee noonu metti na lool daal ci suñu côté moom bu dee dëgg rek nga bëgg a dégg métti na torop côté Touba waaw ñaari salon nag moom mi ngi fi maa ngi fii ak keneen ku nekk côté kër sëñ Abdou Sakkoor ci kaw ne waaw waaye man maa nekk ci marché bi moom waaw maa fi yor sama waaw non dina ñoom tamit ñu ngi liggéeyee salon am nañ foofu fi ñuy wax euh, Kawsara amoon na salon moom tamit am na ñu fa def formation ñoom tamit ndax man dama demoon conseil régional defoon fa formation ci benn projet bu ñuy wax palam waaw léegi bi ma jàllee nag ci lañ ma boole xale yooyu ma ànd ak ñoom di liggéey ñoom ñi ma nekkoon nag ñoom Jurbel xale yooyu ñoom tamit formé woon nañ leen ba ñu ngi yoroon ay màddina ak euh, Kawsara euh, salon waaw dimanche <laughs> bi xanaa dimanche bi de moom ñu ngi sant yàlla bu baax bi ñu ko fekkee fekkewaat ko di ci sant euh, suñ borom bu baax moom ñuy yóbbu ci année bi ñëw ñu fekkewaat ko loolu moo jar sant yàlla di ci ñaanal suñuy waajur yi nga xamante ni wujj nañ seen borom yàlla xaare leen àjjana ñun ñi ko tewee suñu borom bàyyi ñu fi tamit yàlla bàyyi ñu fi ñu di leen ñaanal bu baax a baax a baax su dikkee nag suñu xel day dem ci suñuy waajur ndax li ñu fi bàyyi du suñu njàmbaar la leen yóbbu ñoom tamit du seenu yaafus waaye nag sant yàlla bu baax rek 8 mars moom doon bis boo xamante ni jigéen ju koy feete tamit ju nekk rek na nga xool la nga bàyyi ginnaaw muy ci lu baax. waaw ndax lu baax rek am solo laneen amul solo waaw ñu ngi sant yàlla bu baax nag akuna salikan xayra laqam ya abdul ya musil ya man anta mujiri axuna ya muminu fa abadan kun muminan ya sal jalal min kulli suin wa asab Diouf waaw ah, defar fonde ak woogu suusal bi gerte Ah, bu doonee ngoon gi ma defar cere ak ruy <laughs> xanaa métti nag rek <laughs> métti rek de ndax fi ni ma jaay nii ba pare doo ko dem jébuti dugub dem ma amee dem si machine ba soqlu suma ma soqloo ba pare dem kër ga suma ma demee sibeti foofu foofu ko ba jëri ko ba mu set ma sibeti ko xooj ko ba mu jëjëf ma segg bàyyi ba ngoon ma ñëw wallu su guddi jotee su nit ñi tëddee maa ngi araw ay minuit laay pare ndax araw dafa métti fi ne nii damaa araw ba sama mbagg day métti bëgg a tedd rek ah moom kay moom doy na waar moom dinaa ci yàgg de moom dinaa ci nii moom bu ma xasee ba jëm nii daanaka duma ma yendal ndax fi ne nii damay daal di nekk ci soq bi di sibet ak defar su ma paree maa ngi moon cere ji ma war a togg ngoon pour jaay ko su ma paree ci cere ji defar suusal bi su ma teggee suusal bi teg ruy bi su ma tegee ruy bi daa dem teg sama buntu perong teg samay bagaas su ma su di araw di jaay su ku ñëw ma bàyyi li may def jaay la ba pare continuer waat sama liggéey waaw moom dina jeex waaye nag rarement rek ñaare mu des ñaare mu jeex <laughs> ah, jigéen <laughs> ah jigéen ñi de moom ay jàmbaar lañ moom ay gaynde lañ foo leen fekk moom ñu ngi dóor waar jenn jigéen nga yow ne mu këram fekk ko fa mu tëdd amul déedéet amul de li ngay fekk góor mu toog ci kër doo fu fekk jigéen te boo duggoon si dëkk bi wër gis da ngay fekk góor ñi ñu toog si mbedd yi wala ñu ne seen grand place te jigéen moom saa foo demee yaa ngi ko fekk mi ngay liggéey man fi ne ma jóge fii maa ngi ca kër ga maa ngi ca kurti kurti ja rek ba jant bi so ma nekk ci mbirum foode bi bala bu ñu bu ñu noddee ay lii rek laay jóg ah xanaa ñu takk suñu sër rek te liggéey te xam ne liggéey rek a fi nekk leneen nekku fi waaw ba caaxaan yeeg fo mi ak taxawaalu bi te liggéey fonk suñu bopp te xam ne ñun jigéen dañoo am lu kenn amul nañ nañ xoolaat suñu bopp baax a baax wajalu rabbi min nanan muajjala jaalibatan yaa xayu yaa qayyuum kulli ya muji voilà maam Thierno ba tey ñu ngi nii rek fii ci Touba Fall ñëw découvrir ndoo rek femmes yi nga xamante ne nii moo di femme battante yi ñoom lañ ñëw rek ngir sargal leen ci 8 mars bi léegi gis nañ leen nag ay jàmbaar lañu femme yoo xamante ne nii ay référence lañu gis a soxna si ñu nekkal moom boutique la yor mu nekk lu jafe nag xamante dafa jafee gis jigéen boo xamante ni dafa yor lu mel ne alimentation ndax en général lañ daan gis rek góor moo ko daan yore soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax tamit di la sargal ci li nga xamante ni yaa ngi koy def. jërëjëf maa Eh, kenn ku ne sa tur sa bi ngeen jóg ba ñëw fii ci Touba Fall gi dëkk jigéen lañu waaye foo ñu fekk dañuy dóor waar rek dinañ sant bi naka la. Soxna Khady Ndiaye. Soxna lii moo wax sànq ci début bi mooy dafa jafe ñu gis jigéen bu yoree alimentation naka ah, xanaa comme ni ngeen ko gisee rek ñu xëyee rek nekk ci di rek. jaay ko jënd di lekk xaalis sonn nag lool nag mu metti trop lekk bi metti na fay bi yenn saa yi dem bay jamono day tar lool metti lool waaye terewul nag day fay metti lool nag buñ bëggoon daal ñu mën a jàppale. Hmm. boutique boo ko yoree dafa mel ni day laajte lépp luy temps naka nga koy boolee ak sa kër. dëgg ñu ne nii su ma waree dem ci mbirum kër gi dama dem ci mbirum kër gi ba mbirum kër gi sotti mu ñëwaat ci bitik bi ah jafe hmm, su ma bitik kër moom il faut mu tar hmm. 8 mars di bis bi nga xamante ne nii moom lañ jagleel jigéen yi su rawatina jigéen yi nga xamante ne nii ay jàmbaar lañ ndax en général dañuy fàtte ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekkee ci village ak yu ni mel moo tax tey nag ñu ñëw découvrir ñi nga xamante ne ñoo nekkee fii ci Touba Fall tey nag ñu tànn la yow ngay soxna nekk référence ci loo xamante ne bi lu raar la muy yore boutique alimentation ban yëg-yëg nga am tey boo gisee ñu sargal jigéen lii la xam fa see ci góor rek tey liggéey daal ñun daal ñun fii daal moom jigéen ñi Touba Fall daal moom jàmbaar koo ci xëy ku ci kenn ku ci nekk daal boo xëyee moom am nga sa kër dugg ci marché bi jaay sa doole pour la yóbbu sa njaboot xale yi sonn nañ mag ñi soon nañ waaw ñu pour dimbali la lan lay doon. pour ku dimbali ah pour pour naa doon looy rek pour yéen nu ngeen kii rek ba jàppale ñu rek ba mu gën a woyof baax na waaye ñun dimbali moom bëgg nañ ko lool. bëgg nañ dimbal de ndax suñu xale sax ñoo gën a sonn dañuy boole jàng ak dem ci tool yi taxari dem rooti def yëpp daal sonn nañ daal waa terut jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la bàyyi rek nga daal di lancer benn message ak soxna yëpp waaw di soxna Touba Fall yëpp rek di leen ñaanal rek yàlla defal leen jàmm mais yéen ñi ñëw fi tamit ci dëkk commencé Cheikh Ibrahima Fall yàlla defal leen jàmm defal leen ko kawe seen mu dëkk bi moom ku fi ñëw ku ne moom da nga rek waaye doo wàññi ndax dëkk moom. wala tuaxisna bi kasratil fudul fi saa'irin wa baatinihi wa bil xubul وكن معيسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واسم قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى man jaal siin laa tudd soxna jaal siin lii rek jaay nii jaayantu nii rek damay jaay rek boobu gën a jaay nag maa ngi ci fanweer at yooyu lii ci jaay ak léegi maa ngi koy jaay. waaw maa ngi jaay ah de xanaa dañ koo mënta bàyyi rek waaye bëriwul ca gannaaw de moom waaye temps yi de moom bëriwul moom ndax marchandise mi seer na wax naa nii rek yootoo nga ne day dikk jox ma léeg-léeg ma yóbbante Touba gis nga li lee fi ne matt laa ko yóbbante ah ah kay dinaa dem di jënd di ñëw mooy nii rek luy amul ma dem jëndi di paas dem paas del si te yi moom fi mu ñu ngi jënd moom ñu jënd moom nag mënoon naa gën a noo ngi sant waaye nag mënoon naa gën ca gannaaw daal la gënoon a dox léegi hmm. waaw waaw mën a ñàkk moom boo doon lekk sax ba bala ngaa noppi da nga sonn coono moom moom lañ fi yàlla indi. waaw. ci. Hmm. ah waaw jigéen ñi di moom. leen sagal it ñu sant noo ngi ci sant yàlla nag ndax yàlla sax moo sagal jigéen. kon nag moo ngi sant bu baax rek dolli di sant yàlla bu baax tey ñaan yàlla dolli yàlla dolli ne dund bi daal dolli ndax jigéen ñi du sonn nañu waaye njaboot gi leen tax di sonn jàppale njaboot gi moo leen tax di sonn wa xurmatil malaayika alxurri kiraam wa xurmatil kabati baytika alxaraam wa xurmatil bayti muqaddasi alazim wa bi madinati rasulika alkarim وبيتك المامور يا رب وما يسره من مالك فوق سما وجاي كل سعود من سالك أو مرشد أو عابد أو kii man ay ay kii laay genre cosmétique laa xam nga dañuy yëngu ci waaye fee daa xam naa dafa taxut mu yomb moo tax man soxna Kana Fall laa tudd waaw waaw ci ak ay tiis yëpp laay jaay waaw loolu laay liggéey war naa mat ay 4 ans ñeenti at daal xam naa lay war a si ñeenti at waaw waaye damaa njëkkoon di yëngu ci yeneen waaye léegi kii laa nekk léegi waaye nag xaw naa am ay jafe-jafe daal njaay meeg jënd bi ah xanaa ñiy jënd si am nañ jafe-jafe ndax li ñuy yor bariwut te dañuy leb te duñu fay boole koog euh, som bi ñu war a yor ba war a mën a jënd bagage yeeg yooyu am na <laughs> am na maan ko lépp ngi fi de waaw ndax dañ dul yoon ay jafe lépp si jafe-jafe la rek danañ ko wax waaw def ko bëccëg waaye pour bëccëg bi ni war a demee noonu bu fekkoon ne bëccëg bi day normal bëccëg bi sax moo tane ci ñuy jaay leble bi waaye dañ lay tuddee bëccëg bu pare bëccëg bi ni war a doxee bis bu ne du ñu dikkee ni ñu war a ci bëccëg bi loolu tax njaay daal am na am na am nay jafe-jafe daal Touba waaw Touba si prix engrais yi waa waaw moom laa ma ñëwee fii léeg-léeg ma am ay fukki fan ak juróom ci kaw nu nu njaay mi doxe rek léeg-léeg mu gaaw léegi yenn saa yi mu yeex xam nga noonu lay demee waaw tàyyi na tuuti tuuti rek tuuti rek <laughs> tuuti waaw métti lool métti torop ndax dem beeg dikk bi moo njëkk a métti fii moom xam nga dem dikk bi dem beeg ñëw bi moo gën a am jafe-jafe gis nga ñee toog ne soo ba léegi ñuy xaar oto amuñu oto bu leen sa boo demee jënd foofu bagage bi transport dafa métti loo fa jënd lu bu nekkee ci carton sax da ngay fayal carton bi bu dee sa jëm bopp da nga jël taxi dem di dem ak ñëwaat loolu moo am jëf waaw waaw te taxi day seer fii waaw ñu daal ku ñu jàppale daal ñu jël daal ndax dañoo bëgg a liggéey loolu nag te am ay jafe-jafe liggéey bi waaw teetu jigéen ñi waaw jigéen ñee ko moom waaw waaw xanaa kontaan ci loolu nag ndax suñu bis la ñun ñëpp ñoo ko def suñu fierté la ci ñun waaw am nañ ci kontaan trop suñu sañoon suñu 8 bi saa yu ñëw bu ne fekk ñu ñu am doole ju bari ba war cee mën a def lu baree baree bari am ci kontaan te lool وسر من يركب ساسلاي وسر من يطير ساجراي وسر من يعيش بالكلام وسر سدج والخيام وسر من ينفس في الوقود وسر maa ngi lay fay doomu jàmbur Binta Seck laa tudd dëkk Touba lii mooy ndéef lii lii ndéef la ndéef nag boo ko déggee moom ci nag yi lañ koy jëlee ndax xam nga lii metti rek dëkk bu développé mooy mooy def nii di for ay ndéef di ko xam ak a jël ay matt di ko xam seeni morom ngi toggee ay gaz ak lu nekk waaye gis nga ñoom lii la leen yàlla jagleel te fii nag dëkkub Seex Ibra lii moom war na fee mën a jóge ay jàmbaar lan nag pour ñu mën a togg. moom la ñuy utiliser door a mën a toog bala ñu dem ci àll bi di ko wuti doog koo am te lii xam nga ni gënut lii metti na li gënoon mooy di am seen gaas di am seen i cuisinière la xaw ma ni ko gën a waxee cuisinière di taal muy tàkk muy neex ngay sangoy sañ say toog waaye gis nga leen li ñu am. déedéet lii moom xam nga ne jaaduwul ah. maa sant bu baax man ma koy géey dafa mel ne li ngay def ni metti na de. metti na trop léegi bu ma jógee fii maa nga jëm ca teen ba dem rooti ñëw togg mu metti ci man lool nag te maa ngi gis samay moroom ñu ngi am seeni gaas di ci togg di am seeni këriñ di ci togg man awma këriñ ma gaas mat laay togge walla ma dem ci àll ba for ci ndéefi nag yi ñëw di togg ay boori fajar laay jóg 5 di du matin mi ngi ma fekk ci àll bi ma wuti ndéef ba dikk doo ko mën a dem ca teen ba nekk nekkaat sama liggéeyu kër ak sama njaboot ma sonn lool nag waaw si na trop xanaa ñu lancé message rek ci ku nu mën a jàppale lu nu mën a jàppalee rek dimbali ñu ñu jël ñun jigéeni Touba Fall sonn nañ lool. kunu nu dimbali jigéeni Touba Fall ay jàmbaar lañ. ay jàmbaar lañ lool nag ay jàmbaar lañ lool sunuy sëriñ ñi jàmbaar lañ lool nag waaw seetaanu ñu genn wet dañuy soq dañuy bojj dañuy rooti ca teen ba sunum ndox munta doy ndax sunum ndox lim lim yanu. moom la àttanut waaw li mu yanu moom la àttanut ndax Touba Fall dafa rëy boole ko ñi ko wër dëkk yi ko wër yépp rëy na trop moo tax sunu ndox mënu ñoo doy amuñu ndox mu ñu doy amuñu lenn lu doy waaw. maa ngi fi ndaw laa yanu dis na lool. dis na lool de na lool waaye dañ ne jigéen bu bëggee am lu baax ci këram day nangoo góorlu di di déggal jëkkëram di liggéey di ñàkk jariñ na te dama taxani woon nag hmm. maa ngi ni awma leen lu ma toog gi waaw ku ñu dimbale daal ñu jël awma dara lu ñu toog gi damay dem ci àll bi for lu ma toggee ñëw taal togg yekk jox sama njaboot ku ñu dimbal bu ma xëyee suba teeram mu dékkee pare dem taxani waaw dem tool taxani taxani dem te teen ba root soq waaw jigéen ñi ay jàmbaax lañ jàmbaar lañ moom ku ñu mën a dimbale daal moo gën jàmbaar lañ lool ci jànkonteel ay jafe-jafe bu ngeen koy def ak yooyu waaw ndax léeg xëy di war a dem di sa yaram di métti doo mën a dem di fori ndépp te boo ko foriwu doo am loo tooge waaw ku daal حافسا واجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا lii mooy soq fajar laa yeew sibet dem sa teen ba wuti ndox su ma sabetee ak kaw wuti ndox su ma ñëwee fekk sama soq gajaf ma daal di koy wal dog koo tay cere jox ko xale yi. kon lépp loo nga xam te da koy def ci dugub la ci gën gi nga koy defee. gën laa koy defee fi laay soqe fi laay dog koo mooñ tay ko cere jox ko xale yi lii ma araw ko def ko laax sif si jafaay. ndax da ngeen di bojju tamit. dañuy bojju damaa bojj nii ba ñëw dog koo sóob di ko soq su ma paree. soo ma wutee ndéef bu taale daqaar jamb ko def ci suukar sifal ko xale yi ñu lekk ma tay cere ji ñu mel ne yéen a ay jafe-jafe yu tar yu tar ñu bëgg nag ñu gestuñu ndax lii metti na te sëy rek a ko waral di daan suñ doole rek bëgg ñu kenn xamul daan doon ay muñkat doon ay sëykat ndax xam nga ne lii metti na te ñu ngi toog di ko dund tax 8 mars ñu jagleel ko jigéen ñi di leen ci sargal ñu ngi ñëw tànn jigéeni ñi ndax seen njàmbaarte ak li ngeen di daj ci jafe-jafe. billaay kontaan nañu si lool ndax jigéen ñi Touba Fall moom lu ñu defar rek fayu ñun lu ñu defal it jamuñu ndax muñ nañ ko fi xaar nañ ko fi doon na lu ñuy dundit mu metti lool.